ku toog rek a tudd El Hadji Amar ndax fii dafa ñaayoon moo ko xàll ba lépp leer gan yi nag di Moussa Kouaté maa koy nuyu ak ay eh, di leen dalal jàmm di leen ñaanal yàlla yow Moussa dañ lay wax rek ñu jigéenu Colobane ñoo ngi kontaan bu baax a baax ndax dañoo gis ne fu lu Adama Diallo doon def ah yow de ñëw nga waaye nag suñu xel dal na bu baax a baax ndax yaa ñu woon yoon ndax commencé nga moo tax suñu xel dal na ci yow waaye nag ñuy ñaan yàlla rek yàlla yeggaleel la mébét bi nga soxla ci départemental bi yëpp ñoo ngi lay soxla ñoo ngi la koy ñaanal monsieur le maire nag dañoo kontaan ci yow bu baax a baax ndax amaat bi mu jéemee def yàlla dogal li mu dogal yow nga ñëw toog ñu wote nga toog ba pare so neexoon nga gëmmu tëx luu waaye defoo loolu ñun jigéen ñi dañoo ngi sant yàlla bu baax a baax ndax fàtte woon ñu benn yoon ndax lépp la jël rek wax nga jigéen ñi jigéen ñi nag ñoo ëmb lépp tey jii amul loo dajul ci bésu tey bi exposition bii ngeen def fii yàlla ak la ndax formation yi kon nag Njaay Jaata dañ lay ñaanal yàlla rek yowit mébét bi nga soxla ci Colobane ak li ko wër yal na la ko yàlla may nga yeggale lool Moussa Kouyaté ñoo ngi lay yóbbante ci élage a ci élage a Adama Diallo ak président de la République Macky Sall ndax Macky Sall dañoo bëgg nag ñun jigéen ñi nañu gestu gestu département bi depuis Amath Diop ñun ñu gëmm toog lu topp ci Amath Diop waaye booba tey ñu naan Amath Diop tey suba tey suba tey suba ba ci bun Ablaye John ñu toog rek di xaar topp Amath Amath jàll na yàlla dimbale na ko ba fa mu dem yàlla na ko fa yàlla may jàmm rek la ñuy wax kon nag maire Dame ñu àndal nañu gëstu moom Macky Sall ndax booba tey bi mu fi gañeek léegi ñun gisuñu dara li nga xamante ne euh, mu defal ñu suñu leader yi defaluñu ci dara. ñu ngi ñaan ñun président conseil département ni ñu koy yóbbante ci Adama Diallo ñu gën ñu a jàppale ci financement ndax suñu liggéey gën a suqali parité bi ci commune bi lépp lu ñuy def ci commune ñun jigéenu Colobane ñu suñu koo xam. te léegi boo xoolee benn góor lañ teg teg benn jigéen lépp luñ fii nas ñun ñoo koy bokk nasandoo dem na ba jigéen ñi dañoo def suñ cër ba nga xam ne ñoom ñu bokkal communauté rural bi mairie bi ñoom ñu bokkal mairie bi doon nañu cër yoo xam ne lépp lu ñuy nas bala ñu ko nas dañoo teew lan ca wax ñun ñoom la ñuy fekk loolu boo ko gisee daal jigéen te bis bii ñun moom rek lañ am ci bis yi mooy le 8 mars waa Gossas def ko ñun ñu def le 11 bi ah Amath Diop moo ñu ko tàmmaloon yàgg nañ ñu koo defal 8 mars fii waaye ren incha ni ñu koy mobiliser gëj na masis na koo dañoo ànd parité amul yenn ñëpp a àndandoo dëkk bi ñu wootee ñu wuy seen loolu sant waa dëkk bi. kon monsieur le maire na ci delloo dukkal bu baax baax di félicité ci mobilisation bii nga xam ne mucc na ayib. di sargal jigéen ñi ndax bis bii seen bis la le 8 mars la ñuy célébrer di célébrer jigéen ñi di sargal ci seen taxawaay ak jàppale bi nga xamante ni ñu ngi koy jàppale dafa am benn borom xam-xam bu mag bu benn xale bu góor boo ko yaree benn nit nga yar mu ne waaye benn jigéen boo ko yaree société lépp nga yàq kon maa ngi sant bu baax jigéen di sant waa Skopje ci message bi ak plaidoyer di ñaax parents d'élèves di ci scolarisation des filles ñu fexe ba jigéen di dem école ba pare di fa des seen njàng gën a sori ndax ñoom it am nañ place bu mag ci système éducatif ndax société bu jëm ci kanam. société bu nam jëm ci kanam ba pare néewal doole say jigéen doo gis développement doo gis succès mi jigéen ñi ñoo ko jigéen ñi ay actrice de développement lañu ndax ku gis li ñu fi fekk nii exposition bi ñu gis dafay wan ne ñun kat nekk suñu jigéen tooguñu rek di xaar ay góor ñu jàppale ñoom na nga waaroo bu yàgg-yàgg yéen nag kon neex ngeen ñu jàppale ndax jàppale balaa neex ndimbal balaa neex fekk ci loxol borom di leen wax ne conseil départemental dina ànd ak yéen jàppale leen ci bépp formation boo xam ne dañ koy defal jigéen ñi fii ci kaw donc conseil départemental dañu am programme le programme d'allègement des travaux domestiques programme boo xam ne day dimbale jigéen ñi surtout ñu nekk ci kaw yi ba moo tax moulin à mil ñu koy joxe dans toutes les communes département pour ko soq bi ak boj bi jigéen ñi a retrouver seen wér mën a retrouver lépp loo xamante ni moom la ñu yemoon moo taxit ñuy def extension d'eau pour que wëgg ñuy wëgg ci teen yooyu mu wàññeeku bu baax a baax wala sax ñu jëlee ko fi loolu mooy suñu objectif kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen joxe rendez-vous ci bu yàggul dara ko ak monsieur le maire Dame Ndiaye di sant bu baax di ko gërëm di nuyu bu baax la fromagerie de Colobane ndax ñëwoon naa fi visiter ko di ko ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di nuyu tous les jeunes du département tous les jeunes de la commune de Colobane. aujourd'hui ñu célébrer la femme ñu célébrer nos femmes mu nekk suñu deuxième émission journée sargal jigéen. parce que programme bi nga xam ne moom la ñu jox askanu Colobane ginnaaw bi ñu falee ci élection yi passé dafa nekk programme boo xam ne dafa am juróom-ñetti bés bés yi ci gën a am solo boo na ci journée alxuraan boo na ci journée sargal jigéen journée excellence journée reboisement journée santé mais aussi festival du simi donc tey jii ñuy def une deuxième boo xam ne dañu dañuy sargal jigéen ñu ne nag jigéen aussi boo koy sargal du nekk rek folklore dañuy innover cette année dañuy indi beneen nouveauté moo tax depuis ce matin boo xoolee programme bi dañu démarré ak benn formation pour outiller les femmes les renforcer sur l'entrepreneuriat féminin mais aussi sur l'éducation financière pour day tax boo leen capacité ñu mën a demal seen bopp ëllëg bu ñu jëlee ay prêt ñu mën a xam ñu ko utiliser foofu aussi dinaa si gërëm bu baax le département parce que bu ngeen gisee les produits yi nga xam ne moom exposé c'est des formations yoo xam ne ni depuis Adama Diallo depuis Amath formation yi maître Gade ko continuer moo tax aussi jigéen ñi mën defar ay produits à Colobane on consomme localement donc sargal jigéen bi loolu moo tax ñu indi cette innovation bi ñu paree ñu jigéen aussi dañ koy autonomiser bi ñu formation bi le matin ñu ne dañuy def li ñu naan euh, remise symbolique de moulin à mille mu nekk un premier moulin à mille euh, de cette année bu jox les femmes de Nguer parce que bu ñu fa demee def campagne pour utal président Macky Sall ay député dañu soumettre ñu ne leen buñ ko gisee mais danañ wuti buñ wutee ba ñëw yaakaar naa ne jox nañ leen machine bi comme niñ ko waxee woon dañu bëgg nag jigéen ñi nga xam ne ni no koy utiliser temps bi ñu daan def di di di wàllu ji temps boobu dañ ko jël pour yar xale yi dañ ko jël également pour def ay toolu gër mais buñ jël mukk ñu nekk waxtaanu Karam Place bi ñu paree si loolu ñu ne dañuy defaat beneen ñëpp pour xam besoin jigéen ñi tey jii yaakaar naa ne gis nañ fi taxawaayu jigéen commune Colobane jigéen daf fi am solo bu baax équipe bi maire amat Diop indi jigéen ñi ñoo ko jiite ñoo ne ci kanam ñoo koy impulsé li ñu bëgg la ñuy def te moo tax tey jii fépp leen joxoon incha allah danañ fa dagg sargal leen dafa war talaa mi ngi koy wax yéen yéenay suñu yaay yéenay suñu sœur yéenay suñu soxna kon lu leen defal doyut xamal ne lu leen defal ab jukki bu ndaw la ci yéene mag bu am ci jigéen Colobane dañu bëgg nag lancer un appel à monsieur le président de la république parce que coow li bëri na Sénégal mais jàmm rek ci lay mujj président ñun bu ñu rencontré def nañu nekk leen ci li ngeen war a nekk man bu wax jotee danaa wax ñun ci loolu la ñu nekk mais au niveau de Colobane nag y a des mauvais perdants nous on a gagné euh, le candidat de l'APR avec une liste avec plus de 500 voix aujourd'hui c'est quelqu'un qui s'agit duñ fi indee un projet mu nekk ne projet bi indiwuñ ko fi buñ defee démarche mu di mooy la première personne boo xam ne depuis les élections il a créé une tendance au sein de l'APR c'est pas normal dañ koy dénoncer ci ci ci ci ci kanamu président mu xam ne ñi nga xam ne nii ñoo fi ñëw ne moom moo leen yóbbu ñu ngi créé tendance te loolu yaakaar naa ne duñuy dimbale président inclusion fu ñuy def buñ paree élection euh, porte développement bi c'est la mairie képp ku am looy looy indi ñëwal ci maire maire jàppale la ñu def ko yaakaar naa suñu feneen balancé buñ bëggee équiper indi na benn valeur bu am solo bu ñu ko tudd dañ ko répartir équitablement ñëpp jot ci di gërëm bu baax suñu frère Makumba li mu def loolu mooy participation inclusive boo gisee lu baax dañ ciy sof sa jëf mais doo fa nekk di créer tendance suñu borom mooy fal nit nguur yàlla moo koy boo man la man la ba pare jukuñ la jox amat jóg dangay gëm yàlla topp ci kawam wala nga dem xel dana loo def mais dañoo présenté ne Colobane tendance bi fi am ñi nga xam ne moom moo leen fal par décret loo ko fi indi danañ ko dénoncé mu xam ne plus jamais en tout cas loolu ñu mën a continuer Colobane appel la boo xam ne li koy wax jiitu mi c' un appel aussi de tous les maires ñu xam ne dynamique changement bi ñu engagé incha allah dañuy transformer le département à travers Maître Kouyaté dañuy transformer nos communes donc c' est irréversible incha allah bu ñu yàlla dimbale de sorte que ne ëllëg le nouveau management bi ñuy impulsé day nekk un modèle ba ñu koy vendre si yeneen commune loolu laa amoon li may wax wax ci yéen également jërë ngeen sant nañ leen bu baax a baax a baax parce que jigéen ñi am taxawaay bu mat buñ demal campagne ba ñëw yaakaar naa ñoom ñooy ne ci waañ ba ñoom ñoo ñuy conseillé buñ ñëwee ñooy xool suñu tar kanam na wala baaxut ñoom ñooy am sax stress donc tey jii ñu leen defal doyul te fii bu ñu amee initiative bi dafa am mille deux cent femmes yoo xam ne dañ ne kenn ku ne da ngay jël symboliquement mille francs bëgguñu xaar mairie bi ñuy parce que nee nañ mairie Colobane état defalu ko dara i femmes yi dañ ne dañuy dugal seen loxo seen gafaka seen ay taabal yi jaay marché bu ko defee ci ñu de la femme loolu aussi un appel la bu ñuy def aux responsables du parti ñu xam ne à Colobane la commune et au département on a besoin encore de l'appui du président pour mieux matérialiser sa politique localement loolu la amal moo wax ñu gërëm ñëpp di ñaan ñëpp ñu ci jàmm di ñaanal département bi euh, jàmm président boo demee nga waxal ñu ko également euh, le ministre département bi Adama ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp